liggéeykat bi dana koy laaj yan diplôme la am ci lu jëm ci wàllum cancer waaye nag waa amul benn diplôme boo xam ne daan na koy génne yéen kaay gi ne nag moom foo médecin bi na keroog ba nga xam ne jël na daal ay dose vitamine C jox ko ki nga xam ne mooy pharmacien bi ci lay nag tànk bi commencé ne wi yaram wi daal di sopparñu ko teguñu ci dara mu daal di ñàkk bakkanam fukki fan ak ñeent ci la délibération bi yéen kaay gi de la témoin xëy duñu Casamance ñoom nag jamono ji ñoo ngi woote li nga xam ne moo jëm ci wàllum négociation yéenekaay gi di bés moom li mu xëy bëgg a xam mooy Salif Sadio moom fan la duggoo yéenekaay gi de La Tribune xëy duñu xibaar naan ñu Bougane Gueye Dany daat nay lancé li nga xam ne mooy opération jokkoo tiiñal Macky yéenekaay gi de Le Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Idrissa Seck gagné gi nga xam ne moom lañ ko gagné ca diwaanu Thiès loole nag metti na ko lool moo tax Idi dafa ba tegaat loxo Thiès waaye nag tegaat loxo googi ak yi nga xam ne Idi man ko say nasa daf ciy génne an lan moo dox seen diggante yéenekaay gi di Vox Populi xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall def na nag lu toll ci fukki ata ci bopp réewum Sénégal ñi nga xam ne nag ñoo far ak Macky Sall nee nañu Macky Sall def na réalisation yoo xam ne yu exceptionnel la loo xam ne kenn mënu ko weddi na Macky Sall moom def na réalisation farandooy Macky Sall yi ñooy wax waaye nag ñi nga xam ne ñooy opposition bi nee nañu Macky Sall deful dara ci réew mi lu dul nag fukki at yoo xam ne dafa wor askanu Sénégal yéenekaay gi ne na en tout cas daal fukki ati Macky Sall xiiroog nga yow moom bëri na loola ci diggante diggante opposition bi ak pouvoir bi yéenekaay gi di bés bi nee na nag lu jëm ci wàllum carburant maanaam yàggatul dara dana manqué lool ci réew mi journal bi di alerte xëy ñu xibaar naan ñu pos pos nag jamono ji ñoo ngi ci ay jafe rawatina ñi nga xam na ñuy liggéeykat ya ndax nag seen salaire yi maanaam ñay liggéeyee poste seen salaire yi pàcc pàcc lañ leen koy fay ndax poste si boppam moo ami jafe-jafe yéenekaay gi di réew mi ko di jee xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko moom nag dafa sàkk woon ñu daal di lëfi li nga xam ne mooy contrôle judiciaire bi ñu gàll ci aw ndodam waaye nag loolee justice daf koo daal di lànk maître Khoureychi Ba déeb avocat ma nee na nag ñoom danañuy def ay pexe ba doyen des juges daal di déglu Ousmane Sonko ci ak xóota la yéen kaay gi di Sud Quotidien ak L'As xëy di ñu xibaar naan ñu bëccëg bi nga xam ne moom la ñu doon màggal ci àdduna bi ngir na xeex lu jëm ci wàllum tuberculose fii ci Sénégal Bambey la ñu ko doon amalee ministre bi ñu dénk wàllum wér yaram gi di Abdoulaye Diouf Sarr moo ko doon présider daat feebar la boo xamante ni bu doy waar la li muy rey ci àdduna bi bëri na loola ni muy wàllante tamit gaaw na loola ndax bi ñu ko ma at mu jot lu toll ci fukki million ñu amee li nga xam ne mooy tuberculose maanaam bis bu set fanweeri junne daan nay wax tamit ne lu jege ñaari million ci nit ñoo xam ne danañu ci faatu ci àdduna bi bu dee nag Sénégal tuberculose mën nañoo waxtu mortalité bi nag mën nañ koo ma ci fukk ak juróom-ñaar ñu si ñàkk seen bakkan ci limu bu lu toll ci cent mille habitants wax na nag lu jëm ci état bi ak xam ne ma ngi koy xeex tuberculose ak nag jéego yi nga xam xamante ni def nañu ko si nee nañ ñoom nag ñetti axe la ñu teg seenu xeex bi njëkk mooy accélérer li nga xam ne mooy détection bi am nag ciblage boo xam ne moom lañ si amala waaye nag yokk li nga xam ne moo jëm ci wàllum communication bi ak partenariat public privé yéen kaay gi délibération xëy dañu xibaar naan ñu maître Moussa Diop mi nga xam ne ay jamono moo jiite woon Dakar dem dikk moom nag ginnaaw bañ ko fa tëbalee maanaam bañ ko fa dàqee dañoo bloqué woon li nga xam ne mooy ay indemnité yu toll ci quatre-vingt-dix waaye nag moom maître Moussa Diop da leen a yóbbu woon fa mbaxana doonee benn nañu ko dëgg